الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن برزاق المخدوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني شريف رضي الله تعالى عنه assalaamu aleykum ñi ngi dellu si di ziyaare mbokk yu tedd yépp te di leen ndokkeel ci bés bu tedd bi di bésu aljuma dellu di sant yàlla moom miy jël bés yu mel nii di ci def ngëneel ngëneel gu tolloog mu wax ni bu ñu wootee rek na ngeen ca jublu yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya li salaati min yawmi aljumua fas aw ila dikrillahi wa daru lbaya dalikum xayrun lakum in kuntum taalamun yàlla nee na bu ngeen xamee te ngeen xàmme dina leen leer ci xaqul yaqin ni bu ñu wootee waxtu julli aljuma leneen loo fa defaat lu dul julli ji nee na julli ji moo ko gën yàlla nee na bu ngeen xamee te ngeen xàmme nee na bu ñu wootee rek waxtu julli aljuma nee na leneen loo ko defaat lu dul dem wuy ji woote gi na nga xam ni wuy ji woote gi moo ko gën su ko defee muy bésu ngëneel waaye muy waxtu ngëneel nuy sant yàlla moom mi nu ci boole waaye di yeesal sunu ziyaar yi itam ci sang bu tedd bi di Sayyidi Ahmad nga xam ni leer yépp ci moom lay baw leeru ngërëmal yàlla ak leeru yërmande yàlla leeru ngërëmal yàlla ak leeru yërmande yàlla ndax yërmande yàlla moom képp ku topp yonent bi te topp bi di dëgg yàlla dina dogal nga seddu si yërmande yàlla képp ku topp yonent bi te topp gi di dëgg yàlla dina def nga seddu si dafa fekk nag topp yonent bi moom du rek nun ni nu ko foogee fii ci Sénégal wax rek nun yonent bi la ñu gëm waaw wax rek nun yonent bi la ñuy topp wax nun yonent bi sunu yonent fu ñu ne Muhammad rek nga daal di fett su topp yonent bi mooy fexe fexe roy jukkoom fexe roy jukkoom mooy topp yonent bi moo tax bari na ñi foog ni ñu ngi koy topp te fekk na toppuñu ko parce que boo leen xoolee du nu reflété du nu reflété image yu yonent bi du nu reflété image yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi daan na wax ni ñaar daal ku mu dañ ci yow nee na boo ne jéem nga ma nuru it nuru woo ma ndax moom xamoon na nit ñu nuru ko yombul ndax yàlla yàlla def na ci moom loo xam ni ci qualité defu ko ci keneen ku dul ci moom kon ci moom rek lañ ko mën a roy moo tax xamoon na ni moom yonent bi ñu nuru ko yombul waaye daan na wax ñaar daal ku may roy war na nekk ci yow waaw mu ni bi ci jiitu mooy sagesse waaw nee na mooy am teggin yonent bi nee na ko amul teggin rek nuru woo waaw nee na bi ci jiitu mooy sagesse mooy teggin parce que mu ni ku amul teggin rek nee na nuru woo waaw mu ni bi ci topp mu ni mooy kóllëre mu ni ko amul kóllëre itam nuru woo te wax na dëgg ndax moom ñaar yooyu ku ko fonk la dafa fekk nag teggin dafa yaatu waaw teggin ci wax waaw teggin ci jëf teggin ci doxalin teggin dafa yaatu teggin ci wax ak teggin ci jëf ak teggin ci doxalin waaw ndax bu ñu nee teggin ci wax mooy fexe mooy fexe bay wax farata loolu mooy teggin ci wax mooy fexe ba xormaal ba xormaal kàddu gi ngay yëkkati lu am solo la lu am solo la waxuñu nag ñu ko foogee ci réew mi muy xormaal wax mooy rek wax lu neex nit ñi déedéet waaw xormaal wax mooy wax loo xam ni dafay tegu ci yoon wax bu tegoo ci yoon nopp buy dégg dëgg bu ko déggee dafay xam ni wax bu dëggu la waaye wax moom ba ca gën a neex mooy dëgg ba waaw dëgg ba daal la yàlla soxla moom dafa naw sax ñu dëgg moom yàlla ndax nee na dem naa ba féete ak ñoom waaw ñu ni lu tax mu ni ndax nanu mel yàlla nee na man seen borom man seen borom ci man lañ ko roye waaw allahu huwa alxaq walxaqu huwa allah moo tax dëgg bu taxawee rek waaw su ko defee yàlla dafay bëgg dëgg ba nekk loo xam ni dafay feeñ ci sa teggin dafay feeñ ci sa teggin moo tax léeg-léeg boo daan ñëw ca nitu yàlla yi nga wax leen ñu ñaanal la ñu ñaanal la benn ñaan boo xam ni bu am solo lay doon sa dund te mooy ñu ñaanal la ba doo beew wax nañ dëgg parce que ku beew rek sànku boo amee alal ba beew sànku nga boo amee daraja ba beew sànku nga bu la nit ñi dégloo ba nga beew sànku nga bu la nit ñi toppee ba nga beew sànku nga ndax yàlla moo bëggul beew ndax boo beewee da ngay réer ndax dootoo xàmmeeti sa bopp te boo xàmmeetul sa bopp mënatoo xàmme yàlla mënatoo xàmme yonent bi mënatoo xàmme nit ku baax moo tax boo daan ñëw ci nitu yàlla yi rek wax ñu ñaanal la ñaan boo xam ni daal sa giiru dund da ngay ànd ak moom te doo sànq ñoom dañ lay ñaanal ni la yàlla na yàlla def nga nekk nit ku dëgg waaw ñoom moom lañ lay ñaanal seetal duñ la ñaanal rek nga am alal duñu la ñaanal nga nga nit ñi di la déglu dañ lay ñaanal rek ni yàlla na yàlla def nga nekk nit ku dëgg waaw su ko defee nga jàpp ni ñaan bi dafa gàtt fekk ñaan bi ëpp na ëmb na lépp waaw fekk ñaan bi ëmb na lépp parce que nee nañu boo dëggoo rek mën a organiser sa dund ndax nee nañu da ngay dëggoog sa bakkan da ngay dëggoog sa rox da ngay dëggoog sa xol te ñetti ñetti vérité yooyu boo ko incarné defar nga sa dund ku defarul dund bi yow sa dund defar ko parce que boo dëggoog sa bakkan di nga xam lu mu àttan ak lu mu àttanu da bari na ku naan mën naa ko fekk na leer na ko ni mënu ko kooku xam nga kooku xam nga su boobaa dañuy wax ni sa bakkan lay na boo dëggoog sa bakkan da ngay xam li mu àttan ak li mu àttanu waaw da ngay xam lu mu àttan ak li mu àttanul kooku mooy dëggoog sa bakkan waaye dëggoog sa xol mooy da ngay xam loo mën ak loo mënul waaw kooku da nga koy xam dëggoog sa rox nag mooy da ngay xam lii priorité ak li dul priorité su ko defee lii priorité nga nekk ci li dul priorité doo ci nekk waaw sa bakkan li mu mën ak li mu mënul li mu mën nga jéem ko waaw li mu mënul nga bañ ci sonal sa bopp sa xolit la mu bëgg nga xam ni mooy yéeneem ak la mu bëggul nga xam rek nan ngay fexe ba ñaar ya benn du sa gaañ sa religion lu am solo la lu am solo la su ko defee da ngay nekk nit koo xam ni da ngay am la ñoo tuddee apaisement waaw moo tax mag ñi daan wax ni remède bi ci gën nee nañu remède bi ci gën ñu ni mooy fexe ba lu nit am rek nga yéene ko ndax nee na ñu ci ngay am jàmm nee na remède bi ci gën boo xam ni moo la mën a dimbali ba apaisement boobu nga mën ko dund nee nañu mooy lu nit am comme yiw nee na nanga ko ko yéene waaw ndax su boobaa sa xol dootul tàng waaye boo ko yéenewul nit da ngay sonn da ngay sonn parce que la romb ak otom lu tax mu am oto la romb ak mbubbam lu tax mu am mbubb la am këram di tabax lu tax muy tabax ah da ngay sonn da ngay sonn dootoo mën a jàmm ak sa xol dootoo mën a jàmm ak sa rox dootoo mën a jàmm ak sa bakkan waaw su ko defee sa dund day naq di sa dund day naq di ndax ndax dafay nekk dund njàmbat dafay nekk dund jàmbat moo tax yonent bi waxoon daal na ñëpp fexe ku ci revendiquer ni sama xeet nga bokk ñu ni ko waaw mu ni nag ma jéem a nuru waaw Ababacar ku baax la waaw parce que dafa dëggu te boo dëggoo rek da ngay baax mu ni yonent bi xam nga ni kenn mënu lu yonent bi ni ko dëgg la ndax yàlla def na ci man qualité yu mu deful ci kenn waaye nag mu ni ko ñaar ku mu nekkul ci yow moom xënte woo sax diñ may nuroo mu ni ko ñaar yan la mu ni ko sagesse sagesse ku mu nekkul ci yow xëntewoo fa fañ may nuroo beneen bi mu ni ko manque de reconnaissance waaw te muy ñàkk ñàkk kóllëre ñàkk kóllëre ni ko mag ñi daan waxe waaw nee na ko amul kóllëre nuruwoo ma waaw beneen bi mu ni ko amul teggi nit nuruwoo ma te wax na dëgg ndax moom ko am teggin la waaye moom it ko am kóllëre yonent bi ko am teggin la moo tax ñëpp lay déglu waaw ñëpp lay déglu te moo leen ëpp xam-xam moo leen moo leen dàq wax moo leen gën a xam yoon waaye kenn du ñëw di wax rek mu fel sa gémmiñ daf lay déglu ba nga pare waaw su boobaa mu jox la conseil te bu lay jox conseil du la ci force waaw dama naan la rek ah boo mënoon de nga defee nii te fekk nam lay wax ni boo mënoon nga defe ko bis boo defee neneen lu dul noonu sànq waaye yonent bi teggi na ma tax teggi na moo tax moo tax kenn xamul dëgg-dëgg jukkoom moom na mu mel waaw tellement que jukko la boo xam ni da ngay gis ni yàlla daal ku mu nar a defar ëllëg ci jukko yonent bi la lay royloo beneen bi itam mooy kóllëre rek la waaw kóllëre rek la jullit bu nekk jaral nga ko lu nekk waaw ak foo mënta nekk waaye gis nga loolu yëpp teewul mu garde caractère am moom yonent bi comme mun caractère am nga daañ la jàngal jukkoom ba nga defe ni sax yonent bi moom nit la koo xam ne rek ku ñëw rek day tëdd sa tànk daal di daal di lay bàyyi boppam fekk na ëpp na ëpp na mu nuru ku mel noonu waaw gis nga noonu nu lay jàngalee jukkoom noonu nu lay jàngalee teggi na noonu nu lay jàngalee kóllëreem teewul ko amoon caractère Cheikh Al Hadj Malick daan na ko wax ni yonent bi boo ko gisee muy ñëw bu bu la fekkee ci place boo moytuwul nga jóg daw ndax caractère bu muy àndal mu ni waaye bis boo toogee moom rek dootoo bëgg tàggali ko moom waaw xam nga caractère bi c'est pour la mission mission bee tax ñoom du ñu ànd ak mukk koy tàppale waaw duñ la tal sax nag su ko defee nag seen melokaan du changé noonu la ñu mel waaw ñi mu yar ñëpp ñu baax lañu ndax moom it ku baax la moom yonent bi waaw moo tax ñu baax ñëpp ci barkeem la ñu ko jële waaye su ko defee nga gis nga gis li ñu jot a wax te mooy fexe ba yërmande yàlla nga jot ci faw nga ànd ak yonent bi ci dëkk nag waaw waxuma àndinu nii rek comme àndinu Sénégal waaw sopp naa yonent bi rek naa ko tàntal ak waaw nañu ma ko tàggal ma fay xaalis su ko defee boo génnee boo waxee rek ñu ne ah kii day xanaa ku yonent bi jaar jaaru soo ku yonent bi mooy roy jukkoom pour mën a dund ci yërmande yàlla waaye bi ci topp muy ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla moom yàllaa koy defal ku ko neex waaw lu jafe la nag waaw lu jafe la dañu dul xam dëgëre ba na mu toll mais lu jafe la ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla li yàlla dalalee xolu ñi koy sàkk nee na mooy moom yàlla mësul yëg mësul yëg fu mu bindee ñu note ci rey bu mu gërëm ko amul volonté waaw ci dëgg la kooku bi mu bindee aadam alayhi salaam ba ba muy bind kii mujj judd waaw kooku bi mu bindee ca xeetu jinne yu njëkk ya ba ba muy bind jinne bu mujj ba kooku ba mu bindee malaayika yu njëkk ya ba ba muy bind malaayika yu mujj ya mësuñu notifié fenn ca xay bu ni yàlla mës na gërëm ko amul volonté du ko def waaw kooku du ko def mën na mën na la nag yërëm moo tax léeg-léeg ñu ñaanal la ñu ñaanal nit ni ko yàlla na nga am ngërëmal yàlla du ko defee rek nga ni amin waaye ñaan bu diis la waaw te ñëpp war nañu xam ni ñaan bu diis la parce que yàlla mi la bind gërëm la kooku kooku kenn xamul lan la kooku kenn xamul lan la yàlla mi la bind ba noppi wëlbatiku gërëm la kooku moo tax bu ko defalee yonent bi sax ñëpp dañuy yéemu ndax bu la xasee ba gërëm bu la xasee ba gërëm jeex na bu la xasee ba gërëm jeex na parce que borom bi du la gërëm mukk dellu ba yàgg di dindi ngërëm nga du ko def bu la xasee ba gërëm rek jeex na moo tax nag ngërëmam jafe yërmandeem nag ku nekk mën na ko ca seet ba noppi di la xool di la xool na nga cay xëjalee sa bopp na nga cay xëjalee sa bopp na ngay àndeek moom na ngay jëflanteek nit ña ba na ngay génne àdduna nu denc la ba léegi rek mu mu mu boole ko ci cadre yërmande gi malaayika yi ñëw ca bàmmeel ba dekki bi ngay dekki ca bisu yowmal xiyam ca àtte ba lépp mu ëmb ko ci yërmandeem te mu ëmb ko ci yërmandeem nag moo gën mu ëmb ko ci sa jëf moo gën mu ëmb ko ci sa jëf parce que li lay borom bi di defal kooku ci yërmandeem rek te ngay mën a teg moo tax mënuloo ko defal lu mu gis mukk mënuloo ko defal lu mu gis mukk te kooku fa la njëriñ yam kooku fa la njëriñ yam ci ñi xàmme ci ñi xàmmee réalité dëkk fa la njëriñ yam réalité bu kenn xamul na mu toll la Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif nga xam ni luy dellu ci wàllu xikma bu ko décrypté rek nga xam ni ku ko déggati it ci moom nga ko dégg ndax ku ko xam la ku xam wàllu xikma lu cay dellu bu ko décrypté ku ko déggati rek da ngay xam ni ci moom nga ko dégg mas na nu toog mu wax ma ni ma yiw bi nekk ci dugal nit ci diine ni mu toll yiw bi nekk ci dugal nit ci diine ni mu toll mu ni ak yiw bi nekk ci nàndal nit ci leeru salaatul fatiha na mu toll waaye mu ni ba ëppati doole mooy yiw bi nekk ci mosal nit ci crème salaatul fatiha kooku ñu ko réussir ci nitu yàlla yi ñu néew la fexe ba nit mos ci crème salaatul fatiha ci xaqiqa mu ni kooku cercle la boo xam ni ku fa dugal benn nit lu la fay ci pale ci aljana doyul te na mu naqatee nga dugal ci benn mu ni ma yow dugal nga ca ñu dul jeex ma ni ko waaye mën naa la ñaan lenn mu ni ma waaw mu ni ko buñ ko bind bu nu ko bind mukk ma ni ko ndax bëgguma ñu bind sama jëf dama bëgg ñu bind yërëm gi ma yàlla yërëm waaw moo ma gënal mu ni ma loolu moom Cheikh mu ni ma loolu keroog bis bi ma ñaanee loolu bis boobu mu ni la ñu ma décoré comme xatmiya pour wax la ñu fële cër yam kooku fële cër yam kooku fële cër yam ndax ñoom dañu xam ne ñuy jamanteeg seen borom te ku mu doon yow boo tabaxee benn jàkk génn ci biti tabax naa jàkk moobule naa ko la ma ca def kay xam naa sama àjjana garanti nañ ko te it mënoo liggéey mukk lu tax nga mérité benn seconde bu la borom bi di bàyyi xel mënoo ko liggéey waaw waaye nag doye di ci wàllu xam-xam mooy tax nga defe ni foofu da nga ko da nga fa am mérite fekk amoo ko mérite maa ko ko ñaan ni ko buñ ko bind mukk waaw ndax soxlawu ma nu naan yaa fi jëf lii yaa fi jëf laa dama soxla ñu ni yàlla moo la yërëm jeex na waaw li ci des suñu digganteeg moom la nit xëju ci Cheikh ni ma bi ma yàlla demandé ma wax loolu keroog lañ ma décoré ni yaay xat mi te wax na dëgg parce que moom boobu fekk na sédd nañ ko cër yëpp jox nañ ko garaat yëpp liggéey na ca xayb ak shahada lu kenn mënul nekk te ba léegi la mu liggéey ma nga yéem nit ñi ndax mbooloom zikru salaatul fatihi bu jub ci suuf mbooloom zikru jawharatul kamal bu jub ci suuf ak ci asamaan génn nañu yéwam ba nag ndax moo ko facilité waaye nu laaj ko moom mu ni moom yërmande yàlla daal la jiital li ci des gisu ko ak la mu liggéey na mu toll yàlla bëgg ci moom daal di koy décorer yàlla décorer ko parce que dafa gis ni dafa gis ni ki dul gis jëfam kooku mënul beew moom ndax beew mooy gis sa jëf jëf naa fi lii jëf naa fi nangam nang te soo gisee sa jëf rek boo moytuwul nga beew ndax da ngay defe ni yaa ngi au sommet fekk am na ku jëf lu dul jeex du xaaj te kenn déggu ko waaw kenn déggu ko moo tax hikma bu am solo la moo tax hikma bu am solo la boo gisee sa jëf rek da ngay yëg sa bopp jëf naa lii jëf naa nangam ak nangam waaw bii kay ni ma fanaanee jaamu yàlla léegi li ma fanaane def xam naa ne nangam nangam fekk am na koo xam ne waxuma la fanaane jaamu yàlla waaye ci la dëkk te kenn du ko xam ci moom parce que per bi yàlla di nangu ak per bi mu dul nangu bokkul peru salaatul fatiha bi yàlla di nangu ak ba mu dul nangu bokkul moo tax Seex Alhaaji Malick ni jaamu yàlla guddi naa fi la guddi mu ni li muy am am solo yi am na ñoo xam ne duñ ci jële lu dul om yu métti nit ñi jaaxle ni ko guddeeg na mu mel jële ci om yu metti mu ni waaw parce que dafa am dafa am yoo xam ni moo war a jiitu yooyu waaw mu ni bu jukko ba jagul kooku du jag mu ni bu taxawaay ba jagul kooku du jag mu ni bu dee loo fanaane ca guddi ga it boo xëy ñu fay ko nit ñi du am njëriñ parce que mu ni lenn lu ca nekk dafa am yàlla na muy tax na muy tax bu ko defee ci sa dund soo jëfee mu nangu te mooy ñaari yonent bi ni ku ko donnul ci moom nee na boo nee yaa ngi koy jéem a nuru door a kooku lu waaw mu ni sagesse ak kulle lu am solo te yooyu te yooyu da ngay gis ni moo mën a dimbali nit waaw moo mën a dimbali nit loo tax nitu yàlla yi yàlla di leen jox lu nekk te lu dàq jaamu yàlla ñi te lu nekk yàlla jox leen ko waaye teewul rek ñu nekk ci jaamu yàlla ñoom guddi ak bëccëg ndax di ko roy ci yonent bi ndax yonent bi la mu daj ku ko dajoo nit doo def la mu def waaw yonent bi daan na naafil amul la mu loo xam ni bu xëyee moom lay ndékkee waaw amul bu xëyee la muy ndékkee amul la mu reere toog ñetti weer juróom benni weer cin du tàkk ci këram te mu gën ñëpp te mu gën ñëpp cin du tàkk ci këram nu mujj tàndarma yii ca Médine lay faral di lekk te mu gën ñëpp te mu gën ñëpp te da ngay gis léegi nit bu nekkoon sax nit ku jege yàlla bis bu amul dépense nga dégg ni nga jege yàlla boo xam ne mënoo sax am dépense waaw yonent bi gën ñëpp waaye daj loolu daj loolu mos naa leen ko wax bi ko Umar fekkee mu tëdd ci basan boo xam ni basan bi lépp a ngi xotte waaw basan boo xam ne bu nu ko lalee boo tëddee sa diggu ginnaaw yépp ci suuf si lay teg waaw sa diggu ginnaaw bi yépp ci suuf si lay teg waaw seetal mu tëdd ci basan boobu waaw tëdd ci basan bi jaaxal te basan boobu kat tampon ba mën ca tegu tampon boo xam ni xay bëgg shahada yépp moom la ñuy xëccu Umar xool ko ba yàgg ni ko am naa lu ma naqari yonent bi ni ko lan la mu ni ko xoola iblis yële ak seeni étage rek waaw ak seeni wurus ñoom Abu Lahab ak ñu mel ni ñoom waaw mu ni ko te du ñu du dara te xoola fa nu nekk ci seen lalu divan yu nooy yi waaw mu ni ko xoola yow ak ni nga mel ak li la yàlla jox nga gën ñëpp ngay tëdd ci yi waaw yonent bi ni ko Umar yow li ngay wax du xikma mu ni ko lu tax mu ni ko prophétie ngay bëgg teg ci balance teg alal ci balance alal mënul jënd nubuwa waaw alal mënul jënd nubuwa waaw mu ni ko te man doxewuma alal nubuwa laay doxe te wax na dëgg wax na dëgg parce que kiy doxe nubuwa kooku alal ji yaa nit ñee koy gis waaye yow gisoo waaw te basan boobu yi nit ñi di wax xotteeku fekk na ca xay bu la ñuy lal nga teg ci sa tàmpo kooku kenn amul njëgam waaw waaye mu jàngal ko ca xikma bu kenn mënul nett mu jàngal ko ca xikma bu kenn mënul nett waaye Umar it dégg ko moo tax ñoom ñu mënoon ànd ak yonent bi ci ay nattoo waaw ndax ñoom yonent bi daf leen jàngaloon boppam xam nga nit bu la jàngalee boppam da ngay mën a ànd ak moom mbooloo missionnaire boo xam ni dafa am échec li ko indil échec mooy ñi mu àndal jàngalu leen bopp waaw da ngay échec ndax du nu mën a ànd ak yow yonent bi dafa woo Umar jàngal ko bopp moo tax natt ba lu mu metti metti ñu àndal jàngal Ababacar boppam jàngal Ousmane boppam jàngal Alioune bopp moo tax bi mu bi ñu bi ñu ko génnee màkk muy muy dem Médine moo tax ñu mën ko topp su leen jàngalul woon boppam kenn du ko topp ndax kenn du bàyyi àllalam di ko topp kenn du bàyyi famille am di ko topp ak distance ba na mu sore waaye faw ñu topp ko ndax jàngal la leen boppam mu jàngal leen boppam wax leen réalité te loolu te loolu te loolu mooy te loolu mooy hikma loolu mooy dëgg te nun te nun ñu ni àndal ñëpp loolu la leen jàngal waaw man loolu bi may xale ñëpp xam nañ ko ci man yàgg naa ko di wax waaw dama daan wax man ci ngëm la nit di ànd ak man ku gëmul dara dama daan wax boo àndeek ma nit bàyyi boo nga dem toog ndax dangay sonn waaw dangay sonn ndax du ma am jot moo tax ku gëmul dara wala kuy gëm-gëm lu bis boo àndeek man na la leer ni di nga sonn ci yoon bi maa la ko wax waaw parce que dina am ku ma jëm du la ko jaral yow daf may leer du la ko jaral waaw te man daf ma koy jaral ndax Cheikh Tidiane Chérif dafa ni ma pourtant yonent yi ak ñu yore mission universelle ni ma ñëw ko ma ni ko lu tax mu ni ñaari jukkoo leen tënk ku ci nekk ci ñoom volonté yaa sa moroom yéen ko nuru ku ci nekk ci ñoom atteindre sa objectif mooy sa priorité mu ni ma te loolu la yonent yi gëmul loolu la nitu yàlla yi gëm mu ni ma kon ñoo nuru te wax na dëgg ndax situation yi ñu doon dund ñoom ñaar yooyu bu leen ko yàlla joxul woon tàyyi nañu bu yàgg waaw tàyyi nañu bu yàgg xam nga yàlla bu la booleeg peuple boo xam ni dafay wax ni daa leen wax nag waaye na la leer ni duñ la gëm ba noppi ni la nag waaye waxal ku ñu jox micro ni kaay waxtaan ak ñii duñ la gëm nag waaw waaye wax kooku boo dee ku tàyyal da ngay wax lu bay dox jëw duñ ma gëm déedéet waaye gis nga ñoom dañuy jug wax ci te dañuy xam nit ñi de moo tax yonent yi dañ ciy daj lu ne yonent yi dañ ciy daj lu nekk wax ak peuple boo xam ne leer na leen ni kenn du ci gëm waaye ñu wax gis nga wax jooju ñuy wax du pour peuple bi dañuy wax ngir seen mission nit dina taxaw ci ko jëm def discours nga defe ni discours bi pour ñu fa toog la fekk du pour ñu fa toog daf ko war a def def na ko li ci des ndax ñu fa toog daan ko nangoog duñ ko nangu yoonu nekku ci def na ko pare na ci te noonu la yoonu ciy jukkoo moo tax seen jukko yooyu yal nañu ko yàlla yàgg di ràng ñuy ànd ak ñoom ci seen jukko di ànd ak ñoom ci seen mission asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu